Heavyweight.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 ñaar di marié teg ci moom nag patron bii di wéew ci turu M Manel di docteur en pharmacie moo ko jiñ ne daa xaar ba mu summi yéreem dugal ci armoire am mu fekk fa xaalisam ne ko tungaañ yóbbu patron bay wax de nee na dafa jóge banque dal di jël xaalis bu toll ci quatre vingt mille francs def ko ci pantalon lem ko dugal ci armoire bi saay ne bi mu ñëwaatee xool xool xool xaalis bi ne ko foo ma tegoon te cin bënnul fëqul naka noonu nee na ci la woo jabar gi laaj ko xaalis bi jabar gi ne ko gisuma ko xanaa jinax yi yóbbuwuñ ko nag moo mbindaan bi laaj ko mbindaan bi ne gisul xaalis bi ma ne xanaa jinne yóbbuwuñ ko bi loolu amee nag ci la patron bi ak jabar gi daal di la pexe daal jël beneen xaalis bu xaw a takku def ko ci pantalon bi lem ko dugalaat ko ci armoire bi bi mu xëyaatee dem xool gis ne xaalis ba nee na may <laughs> ma ne ko mbaa du jinne ju fa ne bi patron bi ak soxna si dem dal di lañ bët bagaasu mbindaan bi bi ñu lañ bëtee bagaas na nag ci la ñu gis bie banque yi ndaw si làq ko ci ab poseet ah! patron ak soxna si nag bi loolu amee la ñu ut seeni ay témoin dal di woo mbindaan bi ci jekk waxtaan ak moom ndaw si bi ñu waxtaanee ak moom ci la mujj craqué dal di ne li mu def moom tayu ko ndax dañ koo liggéey dal di ci teg sax ne la mu jotoon a yóbbu bu xëyee suba dina ko indiwaat waaye li ci doy waar nag mooy ndaw si dafa xëy si si ëllëg si ñëw weddi waat tuuma yi ñu tegoon ci kawam yépp ba patron bi dal di mujj moom ci yoon yoon ca kanamu yoon ndaw si lam fay wax ak di xiini xaana yeyul juge bi tax bu patron bi mujjul woon désisté lambay ñaw ba yoon daf koo mujj daan ñaari at yoo xam ne du ko tëdd ci kaso réew mi de lu ne fii xew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ca kër mbay faal romb na doy war ab xale bu jigéen bu at yi toll ci di élève di ci turu kanjaay la faram fekk ci biir këram dal di koy jàmpaaka ba mu jaare fa ñàkk bakkanam musiba naaru lay mbir mi daal nee nañu samedi bi weesu la xew ci booru 18 heures ji mu doon génnal ñu koy wooye ci turu papa moto dal di ñëw ci biir kër gi kenn xamul nag li mu discuter ak kanjaay waaye papa moto daal jam na kanjaay ba mu jaare fa ñàkk bakkanam ndeysaan élève boobu nee nañ biñ ko jamee dafa daw génn ci biti deret gi sangu ko mu daanu ci mbedd mbedd mi foofa la ñàkkee bakkanam apaamoto mi ñu jot ne moo def yëfi nag nee ñu li tax mu def lu ni mel li mu munul woon accepter mooy kanjaay bàyyi ko ci mbëggeel lu ne mën na koo def kanjaay moomu ñu fàn nag nee na nëga ni daaw la bàyyam génnoon adduna moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax ñeenti sàmmkat yi tamit li ñu def romb na doy waar ndax dañoo soupçonné mandkat bii di wuyoo ci turu es Diouf ne moo sàcc seen nag bi gën a rëy seen gétt gént tax ñu jàpp ko takk ko séquestré ko di ko torturé ba mu nekk ci diggante dund ak dee sàmmkat yi ne ñu seen nag dafa réer ñu koy wër daal di dajeek es juuf es juuf moomu ñu jin ñu yàgg naa def ni mel tax bi sàmmkat yi dajee ak moom dañoo jàpp ne moo sàcc seenub nag daal di jàpp séquestré ko di ko torturé une heure du matin ba six heures du matin ñeenti yooyu ñu ngi turu kaaju Diouf anjaay dee Diouf ak dee jonn bi ñu jàppee sa waay séquestré ko di ko torturer li ñuy torturer es Diouf yëpp es Diouf moom ma nga naan defuma yëguma tinuma gars yi bi ñu insisté insisté es Diouf ne gisul na dañoo takk ay loxo es Diouf taal sawara dal di ko ci sànni ba mu jële ci ay lakk-lakk yoo xam ni fi mu toll nii ma nga ca diggante dund ak dee <laughs> ma ne lii de mooy Sénégal yow ngay dox say nag réer nga njort ne diw moo ko def tax nga fajal sa bopp <laughs> njort nag baaxul parfois day nax nit de waaye it Sénégal bàyyi leen fajal seen bopp yoon am na ci réew mi mu doonoon seen xibaaru buzz di daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz